mbokk yi Thione Seck ak euh, euh, ministre euh, kii de safara yoo xam ne boo ko déggee moom allo chef Mbaye dugalal invité bi s'il vous Ensuite, waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, na def. Eh, eh, eh, waaw. asalaamaaleykum. monsieur Thione Ballago Seck. waaw. ça va bien. ça va très bien. je vous en prie dama la nuyu ko na ngeen def. ça ñu ngi sant mbaa yéen ci jàmm. ça va ñu ngi sant. alhamdulilah ça va bien. ça va très bien ça bien. ça va bien. oui merci ah, attention. ba ba ba jàpp na. non non non laisse laisse. ah oui oui oui oui. laisse. oui. ah, ah, ah ba ba jàpp na. non non monsieur Seck. baax na. na ñëwaat na ñëwaat tuuti. kay. voilà def. ça va monsieur Seck. ça va bien. ñu ngi lay waaw. Euh, euh, ndey euh, jàgga ma woo. Mhm. yaay Waly. Mhm. woo mu ne ah am nga fi benn coup de fil bu la woo présidence bi ma wootee présidence mhm. ñu ne ma da ngay dem ministre de forces armées. forces dañu la soxla. heureusement ba dew ma. présidence. ma ñëw fii donc maa ngi lay remercier bu baax monsieur le ministre. waaw merci beaucoup monsieur Thione Ballago Seck. Euh, président moo la woolu woon en fait. Ah, waaw d' accord waaw mu jaarale ko ci sama loxo. Uh-huh. parce que tout simplement dañu gis ne chanteur bu mag nga. Sénégal waaw te yàgg nga way ay kilifa. waaw parce que fàttaliku nañu ci sa way yu bari yoo xam ne ay kilifa nga ko way. waaw voilà moo taxoon daal vraiment ñu bëggoon. am benn woy bu ñu soxla. Mm-hmm. am tamit lu tax ñu soxla ko. waaw waaw suñu xel bi yëpp dem si yow. ah ñu bëggoon a xam nag yan way yan kilifa nga fi way ak yan façon way nga leen way yu daw yaram yoo xam ne vraiment mën nga ñu ko baaxee comme ça ñun état du Sénégal pare na pour sa cinquante millions jox la ko pour way boobu nga xam ne moom nga ñuy préparer daal. ah tondey bu ma fàttali ko bi ma commencé way boobu ba léegi de yàgg na de. yàgg na waaw parce que way moom ça dépend rek. xam nga léegi la nouvelle génération dañu topp mbaa bi ak yenn affaires yi mhm. mais ci jamonoy baobab ba tey man lépp lu moom mos a woy rek téere la loolu moom yàgg nañ ko wax téere la même bu ma woyee doomu aadama sax c'est vrai damay joxe leçon ci moom pour ñu roy ko mhm. woy naa fi buur daal yi mhm. woy naa fi àddunaa ngi nii demal maa ngi ñëw sax yi ci kaw suuf ci biir suuf tant de way daal. mais yan kilifa nga way yu mag quoi ay. bëri na ay jiit wala jiitu réew. wala bëri na way naa fi numéro 10. ok way naa fi numéro 10. Mhm. président Abdou Diouf. Mhm. way naa fi euh, président yi kon euh, Yaya Jammeh way naa ko. Yaya Jammeh ah. way naa tamit man way nga euh, ko wayatu woon s'il vous plaît. Yaya Jammeh mooy bi muy bi may wax ci ay xar baaxam ci ah. mën faj. ci côté boobu way naa ko. waaye morceau intéressant mi ngi noonu nañ taxaw foofu parce que morceau boobu intéressant na trop dama bëggoon nga ñëwal ma ci tuuti rek est-ce que morceau boobu mën nga ko ak cœur est-ce que mën nga ko wayaat ah no mais loolu loolu mu mel na nga laaj ndax euh, géej am na jën hmm? mais loolu loolu loolu nekkul problème ah, parce que ci ay jaar-jaaram laa way li mu mun a faj ok ak ci am mbaaxam yooyu daal ok loolu loolu loolu moom li ma woowee Abdou Diouf rek wooy ko ñeneen ñi ak yeneen woy yu bëri. ok wooy ko ci yoonu Serigne Touba. signal signal fii. waaw ah, lii la la waaw lii cinquante millions yi na war a jox la. n'est-ce ah. pas boobu mën nga ko wayaat mën nga ko reprendre correctement. ban way bi nga wax léegi nii. man maanaam di nga way Yaya Jammeh. waaw waaw waaw mais waaw bisimilah. signal foofu ah mais mais loolu rek cinquante waaw <laughs> parce que dañuy bëgg way ko en live quoi. pas pas pas pas eh, eh, single eh, lay nekk. Euh, mais mais Macky mi ngi émergé ah. ah oui vraiment vraiment. Euh, bisimilah. Thione Ballago Seck El Ram Daan. <laughs> ok Ram Daan merci beaucoup monsieur Thione. léegi nag d'accord dañ la koy jox seegu cinquante millions la dañ koy virer sa compte bancaire. waa baax na garaaw. garaaw dina baax. waaw non garaaw garaaw garaaw. ok léegi nag kon le 19 la ñuy dem parce que tey jii comme signé nga ba pare ça veut dire accordé nga ñu loolu dañu bëgg nga ànd ak armée sénégalaise. waaw nga jiite leen parce que dañu war a dem def opération de délogement sans cent maanaam dafa am ku ñuy jëli te bëgguñu direct tuuru te yow lañ bëgg nga jiitu. te kooku ñuy jëli mooy Yaya Jammeh dañ ko war a génne Gàmbi te sa way bii moo ñuy permettre ñu génn ko parce que yaay ñëw wayal ko way boobu ba yaramam daw instant bi mu lay may wala mu lay battre instant boobu si la ñuy profité jàpp ko léegi nga préparé wu le 19 à 23 heures dañuy préparé def décollage ñu ngi atterrir à Kaolack foofu la ñuy jëlee bus yi ak char euh, pour départ dem euh, Gàmbi euh, nga baal moom monsieur le ministre man Thione Ballago Seck laa tudd. Mhm. di waykat. di papay Waly Ballago Seck. waaw man luy sama yoon ci guerre. way bi nga wayal yaay jàmme. non non non kese lañu man way naa UNESCO. waaw bu fekkoon ne sax dañu ma woo pour plan UNESCO. Mhm. ma dem way pour plan UNESCO. Mhm. waaye guerre moom. ah non du guerre bu dee pour dem rek la. waaw. baax mu ngeen euh, euh, mu nga baare. léegi président nee naa la yokkalaat yeneen dix millions. dina la neex n'est-ce pas. waaw sama bakkan bi am na leneen lu ma ko gën a lu cent millions. lu tax seetu leen ñi ñi waykat yi nekk ci gouvernement bi. waykat yi nekk. am mais Thione Seck am na waykat bu nekk ci euh, Macky Sall am na waykat bu nekk ci gouvernement am. léegi xam nga ñuy def. waaw dinaa si yokkal cinq millions. de de dama ne ministre conseil bi nekk ci gouvernement am. Mhm. tey way te am mouvement. dafa jotul way yeeg. wóo dañ leen a yónni. leen da da dañ leen a yónni. nga ba pare. Eh, ka ka ka dama nga ba pare maa signé. waaw kii nga xam ne dafa nekk ci gouvernement Macky Sall. waaw yor mouvement. te moo ne fekkee ko ci boole. comme mhm. que coow am na te mu fekk ko ci na ci bokk. Euh, Thione. monsieur le ministre amul benn loi bu ma mën a forcer pour ma dem. mais yaa signé. dama ne bi ñuy wax affaire politique dëggoo ñu ne Thione Seck am na parti am na mouvement. fekkee ma ci boole ki ki ko moom mu ngi ci mouvement présidentiel na ànd ak ñoom dem ak armée parce que gouvernement la bokk. kon nag da nga bëgg a ne uute moo la ci génne yow. de de ah de dañu leen yónni de. dañu leen yónni. ah, ah, ah dañu leen yónni de man daw ma daw ma waali demul baay waali demul yaay waali demul. coon doo génn bureau bi parce que signé nga ba pare. ah ah ah ah. ah, ah non non déedéet kay. ah déedéet loolu nag boo ko defee yéen a ngi wax ci yoon mais way bi yaa ko way wala wayoo. waa kii kii kii ànd ak Macky Sall nag te nekk ci ma fekkee ma ci boole te moom moo fekkee te nee na lu ñoo mu bokku ci. waa boole leen ko ci kay lu ci yoon soom sekk xool baax li ma lay wax fekkee ma ci boole mhm. fekkee nag xeex bi mhm. na ci bokk. man namuma cinquante millions namuma dix millions na dem addunaa ngi nii demal maa ngi ñëw bu la jaralee de politique ba politique seen soxla la àndal ak ñoom dem waaye com sekk bàyyi wàlle rek kese namuma dara de kon nii ma ne fekkee ma ci boole moo ko tuddee boppam na ci bokk. yow eh eh, eh. eh, eh kon doo dem nii. dañ leen yónni man xam naa lépp. man da ngeen non non kenn yónni ma fekkee ma ci boole. Mhm. fekkee na cool yi na ci bokk. fekkee ko ci boole. Mhm, waaw yaram dee yaramam war na na ci bokk waali demul bàyyi waali demul coon demul sekk faramaren demul moom na nga xam ne fekkee ko ci boole na ci bokk